ci kanam mbooloo moo xam ne dooley kese lañ waaye bañ jàmmarloo la tooyoon ci ñoom la bàyyi ko kon yàlla na yàlla fayal ñu saxaabatu rasul ak sang bu tedd boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci nga xam ne ci la xew-xew mag bu amoon euh, loolu nga wax tomb biñ sàkku ñu waxtaan ci mooy al masxu ala al xuffayni wa ala al muy tomb boo xam ne buntu fiq la kon ab bind la bu ñu war laayanti biir ak mbokki jullit di bàyyi xel jataay bi di aju ci nag ci laab te laab it niñ ko xamee du lu am solo ci diine ji ndax ponk bi gën a màgg ci ponk diine ji ginnaaw ñaari baati yi mooy julli te julli moomu laab mooy sart ba jiitu ci ay sartam kon li ñuy waxtaane ci laab la aju kon lu war a soxal bépp jullit la boo xam ne diineem ñor na ko mu bàyyi mu xamee ci ne yàlla borom bi subhanahu wa la diini jim mu indi noppiwul ci dara sàggnewul dara lu mat a leeral leeral na ko fu nit tollu taxawaay bu ko ci war diine ji leeral na ko ci loolu lay dugg masaa gi ñu bëgg a wax massa ci dàll wu ñuy wax xuf ak lu ñuy tudde jabiira euh, loolu ci tàmbul bi dañ leeral ne ci bunt bi ñuy sa ruxsa sa ci la dugg sunu boroom ci ak ñewantam gum ñewantu jaam ñi ak yërëm gu leen yërëm ci la leen ubbilee buntub lu ñu ban nañ koo tuddee baabu tey siiri wa tashil buntub yombal lépp lu jafe rek lislaam du loola lu nar a jafe ci nit rek dañ koo yombalal bunt bu yaatu yaatu la boo xam ne day dellu ci rek ci ne yàlla moo def diine muy lu jàppandi lu jafe lu ne rek da ko yombalal yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kon ñu xam ne mboolem tegandaay yu ñu tege nit ci diine yàlla nëmmut ci ay jaamam teg leen ay xat-xat wala fitna wala metital yërmandeem ak màggaayam ak ñewentam weesu na lool waaye bëgg jariñ ay jaamam bëgg leen wutal aw lay ci njariñ li moo tax mu leen teg yenn jaamu yi kon ñoom lay jariñ buñ ko defee waaye buñ ko defutit ñoom lay wàññi kon ci yërmandeem moom yàlla ci la waxee new ma jaala aleykum fi diini min xaraj diina ji may leen jox ngeen war cee tënku xaraj nekku ci benn xaraj luy xatal di naqaral wala mu mettil ak dund nekku ci ku ko foog rek yaa ko foog waaye nekkul ci diina ji loolu nag ci ay yu mbir yu baree bare la feeñ doon gi diina ji nekk al yusru ak jàppandi mën nañ koo gis yu bari bokk na ci baabu sa bunt bi ñuy wax ruxsa ci diine ak yolomal ak woyofal goo xam ne dañ koy jàng ci fiq ci biir lay dugg li ñuy tudde ak ruxsa ash-shar'iyya nga xam ne bokk na ci li diine ji gën a ràññikoo di wane ne saabu mbir jafee ci nit metti ci moom rek boo delloo ci diine ja fekk fu ñu ko ko yombalee ndigal lu mu tiis tiis yow nga am foo toll ba mënoo ko boo delloo ci diine te dégg ko wala nga delloo ci ku dégg diine dana la wutal buntu yombal boo xam ne looleekat la muy diis diis yow yàlla am na lu mu ci woyofal ba nga mën koo def ci nii ci loo xam ne aw lor du ci bàyyi ko ñal ñëw ci yow di dellu rek ci benn qaayida boo xam ne dañ koy jàng ci alqawaidul fiqhiya muy wax ne al mashaqatu tajlubu taysir te loolu it delluwaayam di yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra mën nañu wax ne lépp lu ñu wax ci rox sa mën nañ koo delloo ci qaayada boobu qaayada bi it ci lay dellu al mashaqatu tajlubu at taysir lu tiis lu jafe lu lor lu ne luy lor lu ne rek day jural nit ki ak yombalal goo xam ne lislaam da ko bàyyi xel ci loolu li ñuy tuddee ruxsa mooy woyofal waaye ñaari maanaa la am ci buñ koy wax ci fiq am na ruxsa shar'iyya am na lu ñuy tudde ruxsa fiqhiyya ruxsa shar'iyya nag moom lu ñu digle la bëgg bu bu ko nit ki aajowoo mu jëfandikoo ko ndax bu ko jëfandikoo jëfandikoo na ndigalul diine yonent bi aleyhi salaam nee na inna allaha yuhibbu an tu'taa ruxasu kama yuhibbu an tu'taa azaa'imu diine ñaari xaaj la li ñuy tuddee azima mooy liy ndigal ci cosaan nga xam ne bu dara xewut jàmm rek di am lii la nit ñëpp war def bu gàllankoor amee ci ñenn ñi nag rux sa mooy ñëw ne yéen ñi gàllankoor yéen ñam am jafe-jafe defe leen nii nga xam ne ko leen ndigal lay doon waaye ñaari nit mën nañ koy def duñ bokk nañ koy defee te kenn ku nekk tënku ci ndigal la nga def loolu lañ la sant ndax diine ji nag sami'na wa ata'na la li nga def bu fekkee lu ñu la sant la rek baax na ndax loolu mooy sa ndigal yow kon ki ci jafe-jafe ki ci xat-xat am na ay roxas yu ko yàlla ubbil ngir mu mën a def liñ ko sant te du loru ki ci nekkut nag ñu ne ko defal azima bi xam ne mooy cosaanul diine kenn waru koo génn ci dul ngànt kon ruxsa charia moo jàkkaarloog al azima bi ñu wax léegi am na nag lu ñuy wax ar ruxsa al bu ngeen gisee kilifa yi di tere tatabu ruxas topp yomb yomb yi di ko moytuloo nit ñi al ruxas al fiqhi moo tax ñuy wax waaye ruxsa charia moom ndigal la ku mu gaar danga ko war def benn mu nekk wujuban wala mu nekk manduban wala mu baaxan waaye lor ne ko ci kenn terewu ko waaye ruxsa fiqhi nag ñaare moom ak bëgg lu yomb la dàkk yomb yi yoo xam ne ay masail fiqh yu ñu wuute kenn ku ne am noo gisee ci sa xel noo déggee nas yi fa mu gën a yombi rek nga dajale leen loolu la ñuy tuddee rux sa fiqhiya te ñuy tere na ku ko topp dañ joxe misaal nit bëgg a takk soxna te bëgg lu yomb dajale ngir yi wax ne am na ne mën ngaa takk soxna te du am wali am ñu ne mën ngaa takk soxna te du ami seere am ñu ne mën ngaa takk soxna mu am diir boo xam bu fa àggee fa la yem am ñu mën nga takk soxna te doo joxe cen nga boole yëpp ne léegi lii mooy sama ngir man loolu amul ci diine mooy loolu mook euh, takk soxna euh, ñàkk mooy mooy yàlla li ñuy sax zina ñoo yem ndax tënkuwut fen ca fu ci nekk nag boo delloo ci téere yi ak fuqahaa yi daa gis lenn ca la nga def ko ko wax léegi nag nga topp leen dajale ba mu nekk lenn ñenn ñi di ko du talfiq loolu moom dañ koy tere ci diini ndax bëgg lu yomb la bëgg mabu diine la te jaaree ko ci ay nasab moo tax loolu taxul ñuy wax kon ruxsa bi ñuy wax ni mooy ruxsa shar'iyya waaye ruxsa fiqhiyya taxul ñuy wax ñu bàyyi ko xel baax a baax euh, sëriñ mag bi radiyallahu anhu bokk na ci ay njàngaleem bi moytuloo nit ñi euh, ruxas shar'iyya ruxas fiqhiyya yi bi muy wax ponki tasawuf limaale woon na ca tarku jumlati ruxas wa udda minha tarku jumlati ruxas wa tarku tawilin fa daa zaruqu nas imaam zaruq la nett ay waxam wax ne ponki tasa euh, tasawuf bokk na ca bañ a topp ay ruxas bañ a topp yolom yolomi diine mooy kon yi fiq fuqaa yu di wax ci seeni masail yi nga xam ne masail faraiya la fu ci nekk rek ngay dàkk la ci gën a yomb looloo la ñuy tuddi ruxas ci fiq yooyu na ko dañuy tere moom koy topp ndax bu ko bu të dëkk dëpp génn ci diine la koy yóbbu aliasu billahi taala kon rux sa charia nag moom mooy li ñu wax nga xam ne nit day toll fenn charia na ko yow mooy lii yow jafe-jafe bi nga nekk xat-xat yi nga nekk moo tax sa diine fii lañ la sant nga defe ko nii rox sa boobu nag dana séddale ko doon ay jëf ak ak bàyyi am na loxo looy def la dañ tere woon la ko waaye ruxsa sa tox def ñu may la nga def ko ak loo xam ne dañ la ko digaloon waaye yow fii ñun la mën nga ko bañ a def te doo ci am ci misaal lekk medd medd dafa xaraam sobe la waaye nit dana toll foo xam ne waagee ci boo wëtu bu lekkul faatu bu lekkul faatu sàmm bakkanam moom lañ gën a farataal ci bàyyi lekk medd boobaa day lekk medd bu dee mbaam xuux sax da koy sañ a lekk ngir musal kanam ba mën a dund moom lañuy jiital ci bàyyilu lu xaraam liñ ko kon lekk medd ci nit koo xam dafa loru ruxsa la ci moom boo xam ne sax da koy war bu àggee ci leer na ko ne bu lekkul dee du sañ a rey boppam ndax wala tulqu bi aydikum ila ko daa war a lekk ci medd mi bu dee ci mazhab bi tibb ca yóbbu ba keroog muy gis lu daxan lu làpp ko bàyyi loolu ak euh, jëf la naka noonu sax dañuy wax ne koo xam ne ay nit dañ laa tiim yor ay ngànnaay ne la weddil weddil yàlla mbaa ñu rey la bu tuddee ci làmmiñam baatu weddi te nekkut ci xolam kenn du ko ci topp illaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman loolu it ci roxasi la dugg nit wax baatub safaan waaye waxu ko nag ci coobareem dañ koo fitnaal mu bëgg a sàmm bakkanam taxamu wax ko te wo te jubluwu ko loolu loola lislaam du ci topp kenn loolu ruxsa la roxusa la ci jëf loo xam ne dañ la ko tere woon ruxsay bàyyi it bari na lii ñu bëgg a waxtaane tey ci la bokk ci jàpp dañoo santaane raxas ay tànk léeg-léeg nag ruxsa ñëw ñu ne la tànk yi bu ko raxas te du te nga loolu ruxsa la ci bàyyi julli nga tukki ñu ne la julli yi nga xam ne ñeenti rakkaa la léegi da koy julli bu ci nekk ñaari rakkaa tisbaar takkusaan ak gee loolu sa la goo xam ne da ngay bàyyi lu ñu la digaloon ak ki nga xam dañ ko ne saabu amee sobe na ko raxasi bu toj leen a jàppi am na koo xam dafa yor wéradi goo xam ne sobe day génn ci moom saa su mënul koo téye wala mënut téye sobe si kooku dañ koy wax ne ko bu julli jotee demal jàpp rek boo jàpp ba noppi nag ak lu mën a génnaat demal julli nga xam ne sobe génn ci moom wala ay yéreem taq na sobe waaye teewut dañ koy may mën koo julli wala ndax rox sala ci moom ndax dafa am ngànt xëy na kooku dañuy wax rek ne ko moom du jiite ku loola dalul waaye mën naa julliwaale sobe soosu ndax ngànt la ci moom loolu ci bàyyi loo xam ne dañ leen bu ko def la bul julli te laaboo la léegi nag maa nañ la julli te laaboo ci dëgg-dëgg euh, dana nekk it moom ruxsa shar'i dana nekk lu war dana nekk luñ sopp dana nekk lu dagan kañ lay nekk lu war bokk na ci lu mel ne sàmm bakkan am ndaw ko ndaa bu doon jëfandikoo jël lu ëpp mu mu takki ak bulee mënta dem mënta dikk benn mu fexe ba mu génn ba am faatu ñu lijjanti lijjanti ñu nit ñi ngàdd ngàdd génnul lenn benn liquide bu ñu mën a jëfandikoo ngir mu naan ko jàll néew fa lu dul biteelu sàngara dañ koy wax ne ko naanal sàngara si ngir fot bi jàll nga dund sàngara foofu dong la la mayee nit mu jëfandikoo ko jàllale fot bu fekkee ne leneen néew fa loolu sa la boo xam ne waajib la ci moom waaji foofu sëñ Tuubaa yi boppam di dee ngir ne du naan sàngara si te yoon wañ ko mën nga koo naan ngir jàllale fot bi dana nekk lu ñu sopp lu mel ne ku tukki tukki boo xam ne tukki bu tegu ci yoon la mat euh, diggante bi ñoo xam ne ku ko tukki sañ a wàññi wàññi googu lu ñu sopp la ci nit ki ndax sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne moo gën matal ci ki nga xam ne sunna ma dañoo sopp muy wàññi moo gën kon moom lañ gën a sopp ci matal julli moom aji tukki bu sart yi wàññi daje ci moom dana dagal nag ci lu mel ne suñu masala mi ñu nekk tey benn bi mooy bu dee almasu alal xufay ni moom lu dagan la bu la neexee def bu la neexee bàyyi ak yombal ak woyofal daal la bu dee almasu alal jabira nag léeg-léeg mu nekk farata moom bu la leeree ne cër bi gaañu boo ci masa ba wóotuut sa bakkan des ci wala nga ñàkkub cër boo ko raxasee sa yotoo ko raxas day nekk farata nga jëfandikoo ruxsa gi ci yow kon kon at yooyu yëpp euh, ruxsa dana ko seddlikoo dana nekk am ruxsa rox sa goo xam ne ñépp lañ ko may lu mel ne bunt bi ñuy wax asalaam ci njaay ci sharia salam boo delloo ci usulu sharia salam wërta dagan ndax lu lënt xarar da ca nekk mooy di jënd joxe ma njëg di nekk am njaay nga xam day wax ak waa ji léegi ne ko damaa soxla nangam bu ñàggee waxtu sàngam daal koy jox léegi nag njëg gi moom nag bu waxtu jotee mu indil la ci misaal nawet mën naa dugg si nga soxla dugub fekk ab baykat nga ne ko dinaa la jox nangam soxla naa ci fukki bërigoy dugub bu mbay mi ñoree mu ne la waaw daal di jël xaalis bi dem loolu boo delloo ci xawee day mel ni wër taga ndax am na xarar xamoo ba xam waxtoo bu jotee loolu dana wala déet waaye sharia maye na ko may ko ñëpp ndax lan day aajo woo xam ne nit ñi dañ koo ajo woo te buñ ko may dagenutoon dund ko metti la nit ñi dund day dellu cee ci yuridu laahu bikumul yusra ji moo tax ñu may lu mel noonu kon loolu it ruxsa la boo xam ne àmma la ñëpp ko bokk am nag ay ruxas yoo xam ne xassa la bokk na ci ñuy waxtaane nga xam ne ay nit lañ koy may léeg-léeg ay nit lañ koy may léeg-léeg kii kiñ naan na ma ci aw dàll ak na masaa ci jabira loolu du nit ñëpp ay nit ñu dara gaar la ñu may leen ku ñu di ko def loolu ruxsa la boo xam ne xaasa la yi koy sabab nag mën nañ koo delloo ci ñaar yi sabab ñu may ruxsa mooy darura lor nara loru wala aajo yow aajo woo nga ñu may la ndimbal lii ndax boo ko jëfut xëy na dool lor sax nag waaye dana mett ci yow lislaam dana yombal ngir dara ngir aajo dana yombal dara ngir lor mën nañ koo tënk ci ñaar yooyu am nañ ci ay àddila leer naññ nag ci alxuraan ci waxe yonent bi alayhi salaatu salaam bokk na ca yuridullahu bikumul yusra day wane ne lu jafe dañ ko yombal yuridullahu an yuxafifa ankum laa yukallifullahu nafsan illa wusaha man kafara billahi baada imanihi illa man ukriha illa man ukriha wa qalbuhu mutmainum bil iman yooyu yëpp ay misaal la ci ne buntu rox bu yàlla ubbi la innama euh, xurrima aleykum maytatu wa damu wa laxmul xinsiir wa maa uhilla bi li gayrillah waaye nag fa man turra gis nga bu lor amee fala ithma aley fa man kaana minkum maridan wax ala safarin fa iddatu min ayaamin uxar loolu dalil la ci ku tukki saña dokkooram ndax woyofal ak yu mel noonu yu bari bari yoo xam ne yón bi islaam yi xam ne ci xadis am na xadis bu yoo xam ne ahabu diini ila llaahi alxanifiyatu samha diine ji yàlla gën a bëgg mooy diine lislaam ji nga xam ne ak jàpp ndal ki la taxaw ak jàpp ndal defeelul dara inna diina yusrun du salaam moo ko wax soxna Aysa nettali na radiyallahu anha ne maa xuyyira rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayni illa axada aysarahuma maa lam yakun ithma luñ mas a tànn loo yonentu yàlla muhammad day xool la ci gën a yomb mu tànn loola budul bàkkaar rek la gën a yomb lay kon day mel ne diine ji dañ koo tabax ci ak woyofal yàlla bëgg nit ñi jariñu waaye mu teg leen luñ man lu jàppandi ci ñoom moo tax lu jafe rek bokkut laa yukallifu laahu nafsan illaa wusahaa laa yukallifu laahu nafsan illaa am na genn kilifa goo xam ne ci bunt boobu daa demoon di liggéey dem ci ay tool wut ay tool di bay sonn ca lool mënta fexe ba dara génn ci mu daal sànni mbay ma daan ne fa kullun muyassarun li ma xuliqa xalaa kenn ku ne yàlla lam la la tax mu bind day yomb ci yow lépp loo dugg mu jafe ba tëb mel ne kiwut dadul sa mbir ndax yàlla daa tabax mbir yi ci yombal kon lu jafe ci yow rek nga jëm jëm sa tiwut ba ko fa te wuti leneen xam ne yàlla euh, defut say mbir foofu nga seet leneen kon loolu luñ doon leeral la ci tàmbali bi ngir ñu xam ne ruxsa lu am ci diine la waaye leeralaale it ñaari xeeti ruxsa yu am ruxsa yëpp du ñoo bon ruxsa charia moom dañoo santaane jëfandikoo ko kii nga xam ne dafa gaañu ba tànk bi dafa ab góom masalan duñ ko wax mukk ni ko raxasal góom bi mën naa mu jëlee ci ñu dagg tànk boobaa day nekk farata ci moom bu bañ koo raxas te masaa ko jàll ndax loolu mooy ndigalam bu ko xëttee deful ndigal am na nag ruxas yoo xam ne moom yi nga xam ne aajo la ñaare yooyu lañuy wax naa la def azima moo gën ruxsa bokk na ci li ñuy wax euh, loo xam ne tey masaa ci daal nii ñuy wax nii dagan na naam waaye bañ ko dafa gën nag summi say daal raxas say tànk mooy cosaan moo gën waaye nag sañ nga koo sol masaa ci dàll bi waaye am na ci yoo xam ne moom farat lay doon bu dee góom boo xam ne boo ko raxasee lor fekk la ci moom sañu ko raxas kon yooyu it day mat a xàmmee ci biir roxas yi e, jullit bi war koo xam mu leer ci mbiram bu baax a baax ci boppam kon ñaari roxas yi am benn bi moom dañ koo ŋàññi lislaam bëggul nit ki di ko topp ndax topp ay yomb-yomb la diine ju woyof la mandargam gëm gu dëgërul la waaye roxsa bi ñuy wax nag muy charia moom roxsa la boo xam ne dañoo bëgg ñu di ko jëfandikoo ndax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla daa bëgg ñuy def ay roxasam ni mu bëggee ñuy def ay asaye maanaam bu la woy falee daa bëgg nga jëfandikoo woyof ndax da yërëm ko nongul ne ku yaayoo yërmaane nga euh, loolu nag kon moo ñuy indi ci bunt bi ñu bëgg a waxtaane muy massa ci li ñuy wax jabiira ak li ñuy wax alxuffayni massa mbokk yi bu ñu ko waxee mooy sab loxo danga koy tooyal doo ci tànk ndox de tooyal laa wax benn nga dugal ko ci ndox génne doo ngëb dara waaye daal loxo bi tooy na raay ko fiñ la wax ne la fa ngay massa raxas nag dangay tànk ndox na ci nga sotti ca bomb waaye lu tudd massa moom da ngay tooyal loxo raay foofa moom amul jafe-jafe romb jàll rek la kenn waxul a baamul dee su ko def baama ko baamuwaat kenn waxul naan loxo bi fende na bu fendee xoolaatal déedéet moom tooyal sa loxo rombal ko fu la ko rombaloo yow daf nga leen digal sant loolu mooy masa jabiira nag buñ ko waxee mooy lépp lu ñu def ci ab góom di ko faje jabiira la liy cosaan nit ki am góom ci cëri njàppam wala mu am ko ci cëri sangoom ndax li ñuy wax ni kuy sangu farata ak kuy jàpp ñoo ko bokk ku ci ne ci ñoom boo ko gaaree dañ koy wax ne ko bu raxas cër bi waaye masaa ko am na góom am na taab am na fu fut bay metti wala sax dafa wànneen ay bëtam di metti bu ci ndox mi laalee baaxu ci moom ñooñ ñëpp dañ leen sant ñu masaa ñetti daraja la am nag masaa bu njëkk bi mooy da ngay masaa ci kaw góom bi da tooyal sa loxo raay góom bi benn yoon jàll bu ko nangoo waaye leg léeg góom bi metti metti ba nga xam ne mënoo koo laal loxo dañ koy wax ne ko daf ci garab yi ñu ci baaxoo def bu dee luñ ciy diw la bu dee luñ ciy taf la daf ko ci ba noppi masaa ca kaw loola ñaare loolu la ñuy tudde jabiira garab gi ciy def ngir ko jege bu dee damm-damm mën naa doon ay bant mën naa doon plâtre bu ñu tabax nga def ko ci ba noppi nag masaa ci kaw loolu waaye loolu léeg-léeg ak boo ci defee garab sax góom bi métti na métti goo xam ne mënoo ko laaleew kon nag ñun la bànd ko takk ko daf nga ci garab ba dappi takk ko léegi nag masaa ci kaw loolee nga takk moo xam benn morceau la moo xam ñaari la boo koy takk it du du sart ne takk bi day yem képp ci góom bi ñaxa ñaare ab takk-takk du yem ci góom faaw mu takkaale loo xam ne bukk ci góom ba du tey loolu lépp sañ nga ko masaa ci buntu yombal ak yolof woyofal gi lislaam di woyofal ci lay dugal loolu kon ki am ab góob bu ko jàpp waree wala sangu ko mu ragal ne góom bii bu ma ko bu ma bu ma ci defee ndox dana tax mu yéex a wér wala dana tax jàngoro ji yokk wala sax yoroo góom waaye da ngaa yor fu ci foo xam ne bis boo ci sotti ndox rek muy def góob ñooñu lañ sant ñu mosa kon ki ragal jàngoro ji sosu ak ku ragal jàngoro ji dolliku ak ku ragal jàngoro ju yéex a wér ñett ji lañuy sant fi loola nekk buñ ko raxas nañ ko masa nañ tooyal seen ndoxoo raay ko jàll loolu mooy seen farata kon loolu moo tudd euh, mashu alal jabira kon benn ci kaw yaram wi ngay raay ngay masa walla nga raay ci kaw puudar wala plâtre bi ñu ci def walla nga def ci takkaat ko masa ci kaw bànd boobu loolu nag ci bépp cër boo xam ne dañ koo war raxas wala dañ ko war a masa ba ci bopp nit koo xam ne bopp bi def di góom mu def ci kaala laxas ko kaala goo xam ne bu teggee kaala gi rek wéradi ak ñi nga xam ne dañu ne jaww joo xam ne seen bopp boo ci tegu dara bu ñuy muri sa bopp daal ñooñu dañ leen di sant ñu masaa ci kaw kaala seen bu ñu masaa seen bopp duñ dindi seen kaala ci kaw kaala la ñuy masaa buñ ci amee lu mën a lal bopp bi nag nga def ko buñ ko mënut nga xam ne lu feeñ ci bopp bi rek doon sabab ñoom wéradi kooku dañ koy sant ne ko masaal ci kaw kaala gi tooyal sa loxo raay jàll kon loolu it euh, bokk na ci li mat a leer euh, masa wax naa ko léegi doonut loo xam ne it day sonle tooyal loxo bi boo tooyaloon tàmbali masaa dem ba ci digg bi loxo bi wow àggaleel kenn santu la nga ne ko wow naa naa tooyalaat masaa moom foofu la toll ci yombal tooyal ko daal romb jàll lu ci cër bi am jël loolu la sant amut topp di xoolaat amut di ko baamuwaat am na sabab nag mooy li ñu wax léegi gó yaram bi am ab góom am ay taab am ay picc am ay lakk-lakk wala nit ki wànneen wala yu mel noonu tem raxa tem ragal ne bu ko raxasee lor mën ko ci fekk ñetti loolu yi ñu wax léegi ñu bàyyi ko xel jàngoro ji sosu léeg la gis foo xam ne dafa fof boo ci laal ndox rek mu doon góob bu ci def ndox booy jàpp masaako booy sangu masaako jàll am koo xam ne góom baa ngi fi waaye bu ko ndox laalee dana tax dootu gaaw wér bu ci def wala mën naa tax sax góob bi gën a yaatu gën a gën a yokk bu ci def ndox kon bu loolu amee rek boo ragalee benn ci yooyu dootoo ci def ndox da nga koy masaa loolu nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam imaamu ali wax na ci benn xadis ne benn kiiw loxo mas naa fi loxo bi tenq li dajeeg tikku jara bi mas naa damm nee na yonent bi alayhi salaam nee ma laaj ko ne ko nu def mu ne naa naa masaa ci kaw jabaayir yi naa ci def lu ko lu koy faj ba masaa ci kaw loola loolu dalil la ci ne ndigal la Euh, am na it xadis boo xam ne donte ay wax am na ci moom jaabir moo ko nettali jaabir nee na mos nañoo génn di ab tukki am benn waay boo xam ne daa xaañu daa xaañ ci boppam léegi nag bi mu xaañoo mu def ab góom ci bopp bi mu tëdd di nelaw far gént man ñuy génn ci moom mu laaj ñi mu àndal ne nu ma def ñu ne ko ah, da sangu de mu ne ah sedd bi yeeg sama góom bi ñu ne ko sangu rek waaye daal di sangu daal di faatu nee na bañ njëkkee wax ko yonent bi aleyhi salaam eh, ndax waa ji sax laaj na leen ndax leen jàpp leen ne man man na maa tiim ginnaaw dama yar góom ñu ne ko déedéet yow daal ñu liñ gisaal mooy dangay sangu rek ñu daal gisuñ benn rox sa ci nga lu tee nga sangu nee na bi ñëw sa salaam wax ko ko ci la waxee ne xataluuhu xatalahumullah ala saaluhu id lam yaalamu fa innama chifaau layi alsual innama kaana yakfihi an yatayammam wa yaasir aw yaasib ala jurhihi di wane ne kon day tegtale ne ñoom dañ ko jàpp ne dañoo gisoon daa war a sangu ba mu sangoo faatu bañ koo waxee yonent bi salaam mu ne lu teewoon ñu laaj ku xamut day laaj doyoon na ko rek mu tiib doyoon na ko sax mu raxas la ca des takk ab bànd ca kaw góom ba masaa ca kaw kon loolu de firnde la buy saxal ne ci sunna masaa ci garab masaa ci ab góom bañ koo raxas ndigalul yonentu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ab àtteeb nag wax nañ ko sànq juñu nañ ko dana nekk waajiba ci koo xam ne ragal na ne bu raxasee lii dee wala dana ci ñàkk ab cër lor ju metti boobaa day nekk waajib mu bàyyi raxas gi te masaa bu fekkee nag lor rek la waaye nag du yàqub cër faatu doo ci dikkal xam naa dal metti na rek kooku la ñu wax ne eh, day daggan ci moom bu ko neexee def bu ko neexee bañ a def léeg-léeg gis koo xam ne góom bi dem na bay wér xëy na masaa gi de ak woyofal la waaye boo ko boo ko masaa wooyee du wàññi dara góom bi léegi xëy na nag wéragut peleg lor lor ju metti amu ca lor ju metti amu ca su boobaa masaa gi nekkatul farata ci yow kon dana nekk farata ci nit mbokk yi am na ñoo xam ne góom leen dal amuñ sañ-sañ ci ne man damaa ragal yàlla ba faw dama koy raxas boo ko raxasee góom ba doxe ci wun ni yokk ba ba tànk ba dagg da nga xët yàlla sa borom ndax dañ la yombalal nga jafeel sa bopp kon loolu it lu mat bàyyi xel la am na nag ay charte bi ci njëkk mooy koo xam ne góom bi dafa nekk rek ci yenn ci yaram li ëpp ci yaram bi daal dara jotu ab tànkam wala ab loxoom moo def góom nga xam ne buy sangu wala buy jàpp day raxas lépp bu agsee foofa nag xam ne fii kat moom mënu koo raxas mu masaa ko jàll loolu lañ ko sant wala boog sax yaram yu bari ay góom lool am na ca loo xam ne la la wér bëriwut waaye mënees na ko raxas koy da ngay raxas la wér masaa la góom nekk comme li ñuy wax ni tey bu doon góom yu baree bari nekk ci tànk yi ak loxo yëpp dañuy masaa fépp lu mu baree bari dañ koy masaa bu fekkee nag li wér mën nga koo raxas te du wàññi dara góom yi kon raxasal li masaa li def ay góom te it bàyyi xel toftale bi ñu waxoon sànq mooy kuy masaa liñ ko njëkk sant mooy na masaa ci kaw góom bi su ko mënut door a masaa ci kaw garab yi su ko mënut door a masaa ci kaw bandaas waaye doo njëkkee rek bànd ko rek daal di door masaa loolu moo mujj na fekk yi ci des di jur lor waaye bu fekkee góom bi kat dëgg la góom lu waaye nag euh, manis na koo laal ak ndox tey te du wàññi dara kon masaa ci kaw góom bi moo lay war bu ko defee ni ñuy masaa it nag mooy ni muy wax sànq day tooyal loxoom rombal ko ci cër bi benn yoon benn yoon doonte ab cër la boo xam ne bu doon ci jàpp wala sangu dañ ko war a raxas ñetti yoon bu fekkee massa mooy ndigal léegi moom benn yoon ngay massa kenn du massa ñetti yoon ab cër loxo bi la moo def ay góob wala moo dagg wala moo damm bañ di ko masaa benn yoon lañ la ko raayaloo donte loxo xam nañ ne boo jàpp dañuy santaane nga raxas ko ñetti yoon waaye ci massa moom benn yoon lañ la sant nga massa ko léegi nag ki masaa ci garab googu ñu wax ki masaa ci kaw garab googu laab na mën naa julli saa bu julli jotee bu bëggee laal mi mën na ko ndax laab na noonu loolu mooy laabam léegi nag massa bi nag léeg mu yàqu bokk na ci li ko yàq mu jekki-jekki wadd masalan tey dangaa massa woon ci kaw bànd bi danga takkoon góom bi masaa ji mu jekki-jekki tekki ku daal di wadd gaawal delloo ko ci massawaati wala njàpp mu yàqu dañuy wax sax boo kabaroon di julli yéeg ne li nga takkoon ba masaa ci dagg na wadd na da dagg julli gi boo daggee julli gi delloowaat ko ci masaawaat ko doo tàmbalewaat julli kon li nga masaa saa bu dañee gaawal delloo ko ci masaawaat ci misaal waa ji daa masaa woon dem ñu koy tekkil góom bi fekkee yàggut nga dañuy tekkee rek gaaw defaraat bu ñu noppee ci saa sa mën naa masaawaat ngir téye njàppam ma waaye nag bu fekkee amale bi daa yàgg dañ koo tekki góom bi raxas mu toog diir bu yàgg door koo defaraat moom kooku njàpp ma day yàqu waaye bu yàggut moom dañ dindi giñ dindi liñ takkoon ci góom bi fekk nga masaawoon ci yow bu fekkee yàgg toog nga lu yàgg te delloo woo ko ci njàpp ma yàqu na kon da ngay jàppaat waaye bu yàggut nag yow dangay dem masaawaat ci kaw loola bu yàlla dogaloon it nga jekki-jekki dindi ko fekk gómba wér kon da raxas foofa boo bëggee téye sa njàpp mi dangay raxas fa nga masaa woon ginnaaw bi nga dindee lañ ca laxasoon fekk nga gómba wér danga koy raxas njàpp mi daal di wéy waaye moom it boo ko dindee bàyyi noonu toog ab diir bu yàgg njàpp ma day yàqu kon jàppaat moo lay war loolu it bokk na ci li nga xam ne ma war sa koo xàmmee mhm. bu dee lu ñu war a masaa mu masaa ko bu dee lu ma ne boppam moo defoon ay góob mu sol mbaxane war mu kaala woo masaa ci kaw kaala gi bu kaala ga waddee na gaaw delloo ko ci masaa bopp bi kaal gi bu fekkee bi bi mu dañee bu fekkee bi mu dañee nag daa fekk bopp bi wér day dem masaa bopp bi mu basharatan ngir njàppam mën a wéy bu dul loolu njàpp ma day toj loolu euh, li ci des mooy euh, ni ñu waxe nii nga xam ne moom lañ bëgg kuy masaa ci jabeere mu def ko am na ñu ci si bokk na ca mooy di ko jéem a baamu dañ laa wax masaal benn yoon bul baamu kon di ko baamu walla loolu nga di ko raxas te lor na ca dañ koy sib ndax mën nga caa lor sa bopp te yàlla tegut la ay lor ab jaam nag buy jaamu yàlla na jaamoo yàlla luñ yoonal ci moom yàlla de su ko jaamoo lor sa bopp moo tax ku am ngànt yu mel nii jëfandikool ngànt yi ndax ndigal la ci yow boo ko defee laab nga laab gu mat sëkk nag ndax mooy sa ndigal mhm. loolu mooy euh, massa ci jabira kon ñu gis ne loolu bunt bu mat sonne la ndax kenn ku ne ci noonu yi yi koy waral mën na ko dal nit dana damm ñu ñu ñu ñu ñu takk tànk bi wala ñu tabax ko wala ñu def ci ay bant nit dana gaañ yoru góom dana yoru taab yëpp pare na gis koo xam ne yor nay góom daanaka góomi du wér ndax bëgg na diine te xamut saa bu jàpp jotee rek mu dem jàpp raxas góomi mu naccaat kon ma ngi lor boppam te mayoon nañ ko ruxsab na ci massa booba bi wér lu yàgg-yàgg sa ndigal mooy nga ci massa kon kon loolu it mën na bàyyi xel di tom bu am solo boo xam ne bokk na ci li ñu war a jox yitte di ko teel a xamoon ndaw ni ñuy def ndax rawate na gone yi nga xam dañ leen tàggat ndax ruxas yi borom xam dañuy wax ne ni ko mag ñi aajowoo noonu la gone yi aajowoo loolu mooy li gën a wër ci waxee borom xam-xam yi ndax dañuy wax ne farata farata moom lañ déglu lañ dul wax gone waaye bu dee man duubaat yi te gone yi ñu tàggat ko ci jàpp ak ju man duub la ci moom kon mën nañ leen a may ruxas yii kon teel leen cee tàggat ba nga xam ne ku ci amatib góom metti nga di raxas ngir ne dama bëgg a def diine waaye du tax nga bàyyi jàpp it am ñoo xam ne fu ñu fa amee fu fuy metti it fii ak wér du fi jàppati soo leen waxee rek ñu ne te sama tànk daa def góob loolu it du ndigal li mbokk yi benn tànk bi mu am ab góob doyut rek ngir tiim de da jàpp boo agsee massage loolu mooy ndigal fa ngay tiime lu ñuy àgg la waaye kon kii moom euh, benn gaañu gaañu la jàppal nañ la ko sante boo àggee foofu nga tiim léegi la gis koo xam ne moom fenn lay gaañu fu ndaw rek waaye day daal di jàpp boo xam ne nekkatul ku ñu sant ku ñu sant mu mu jàpp waaye day tiim te tiim sëriñ bi jàngaloo nañu ne képp ku ko def te du sa ndigal loo ca am aw yiw sak pay ëllëg bul yàlla yërëmut mooy yóbbu la sawara laysa loxo bi dalika tayamum yawmal qiyaamati siwa jahannami kon loolu lu ma ta bàyyi xel la ñu xam ne diine deesu ko def ci ay ay ay ay ay ay fooki jot lépp dañ ko war a leerlu xëy na mbokk yi loolu tax ñu tànn tomb bi ndax luy lu ne ci kër yëpp la lu mën a gaar ku ne ci nun la kon nag di ko leerlu ba bu la gaaratee doo fétal lu am solo la fétal bokk na ca góom bi nga raxas ko mu yokk bokk na ca nga ne ginnaaw yor nag góom dootuma jàpp yi ci nekk fétal la te fétal nag du jëm du yóbbu kenn ci ab dëkk mbokk yi Euh, beneen xaaj bi mooy masaa ci li ñuy tudde alxuffayni moom itam euh, lu mat a bàyyi xel ndax lu tasaaroo la doonte am na ay sart yu mat a bàyyi xel moom itam masaa la niñ ko waxee kiñ koy def mooy koo xam ne daa jàpp daa jàpp ba noppi sol ay dàll yoo xam ne sart yi ñuy bëgg wax bu ci dajee bu ci dajee buy jàpp ba agsi ci tànk yi dootul summi tànk yi dàll yi di ko raxas da bàyyi dàll ya masaa ca kaw dàll yi dem julli ji nga xam ne day raay rek moom moom itam day raay ci kaw dàll rek li ñuy wax xuf nag aw dàll la yoo noo xam ne der lay doon ni ñuy wax bot nga xam ne boo doon jàpp li nga war raxas jàpp mi lépp lay muur kon day muuraal dojor yi bu fekkee daa mel ne maraakis nga xam ne sam tës sën day feeñ wala say dojor loolu kenn ci masa li ñuy wax nii aw daal lay doon woo xam ne li nga waroon a raxas boo doon jàpp ci tànk bi lépp lépp daal daal bi da koy ëmbaale te nekk daalu der nag waxuñ bu dee plastique waxuñ bu dee leneen lu der ay kawas taxul ñuy wax kawas ti ndimo la loolu kenn ci masaa allahuma muy kawas yoo xam ne dañ ko wutal aw dar li ñuy tudde jawrab nga xam ne kawas la waaye dañ ko muure aw dar ci suufam ak ci kawam nga xam ne booy xool kaw gi ak suuf gi dar ngay gis boo dugalee sàkk ci biir nag am ndima moo fa nekk loolu moom man sa cee ma saa ndax dañuy xool kaw gi dañ koy jàppe xuff ci kaw